اسما أو فعلا أو حرفا كقولك أدرج أدرج تحنيل تحنيل ولا تعد لفظ ضمير متصل إلا مع اللفظ الذي به وصل بالبام نك ci توكيد اللفظ لفظ الضمير ضمير متصل إلا مع اللفظ لدول مو عندك لفظ بالذي بغا خاني وصل به إن زيدا إن زيدا ولا إن زيدا إنه واي بول ني إن إن زيدا رك كذا الحروف dégg nga damir muttasil laa wax kat waxuma ci damaa tudd misaali xaraf te ak seegu damir muttasil laa wax taagi ci darabtu soo ko bëggoon a feddali bul ni darabtu tu bu dee raaytu ka bul ni raaytu ka ka fokk da nga naan raaytu ka raaytu ka wala darabtu darabtu feddali aale fiel bi te andi aale fiel bi ñaari yoon te amoo ci soxla waaye damir bu muttasil kenn du ko ber moo xam marfoo la moo xam mansub la illaa maa allafdi alladi wusila bihi muy fiel ba wala lisim kadal xurufu niki noonu xaraf yi ci seen boppit kenn du leen feddali niki inna inna lu dul bayt woowu nu déggoon inna inna alkarimu ya inna inna alkarima yaxlumu maalam yara yan man ajaarahu xaddiima loolu kenn du ci xel xuruf yi xayra ma lu dul xaraf yi nga xam ne taxasala bihi jawaab jawaab la nekkee taxasala am na jawaabun tont bihi niki naam ak laa ka naam wa ka balaa hal jaa zaydun nga ni naam naam naam lool lu la soob al faalta kada nga ni naam naam naam alam tafaal kada nga ni bala bala bala ka naam wa ka bala xarafi jawaab yooyu nga xam ne moom du jokkaloog dara manees na ko wa mudmaru rafi alladi qad infasal akid bihi kulla damirin muttasil nee na wa mudma wa mudmaru rafi alladi qad infasala damiru rafa bu facc niki huwaag yooyu ak anta akit bihi mën nga ko feddalee kulla damirin muttasilin moo xam damir bi ngay feddali moom marfo la ni ki ni ki darabta anta wala mansoob la ni ki raaytuka anta kaaf gi mansoob la param bu nasab la neti teewul wala marartu bihi huwa marartu bihi huwa huwa lu mu feddali damiru majroor boobu أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وهو الفتاح العليم ñaar la atfu bayaan ak atfu nasaq atfu nasaq mooy ataf bi wasitati xarf ni ki waaw ak yi muy àndal ñu di ko lim fukki xaraf lañu yuy ataf dégg nga atfu bayaan nag moom dafa niroog naat te du te du bokkut ak naat moom bu jeexalee kii moom la ciy teg mu ni al atfu ñaari façon la imma benn zo bayaanin maanaam déet atfu nasaq lay mujje atfu bayaan la jëkkee benn muy boroomu biral man oot na wuteeg wuteeg atfu nasaq moom yaqtadil mugaayarata moom day day tegtale ni yaar yi bokkut ndax den lëf kenn du ko ataf ci boppam soo ne jaa saydun wa amrun xel mu ne xam ne amrun beneen jëmm la bu bokkul ak saydun waaye tey boo ne jaa zaydun abo amrin te fekk abo amrin la nit ñi gën a xamas turu zayd bu boobaa abo amrin at fu bayaan la ci zayd mbaa bu la neexee badal ndax at fu bayaan ak badal ñoom ñaari mbokk lañ yoo xam ne man loo liraabe kii mën nga koo liraabe kele mën nga ko tudde kee feeg ngant amut lu mel ni ala sayidina muhammadin bu la neexee ni muhammadin badal la ci sayidina bu la neexee ni at fu bayaan la ci waaye day am loo xam ne nag at fu bayaan dong lay man dana nu ca àgg ak loo xam ne badal rek lay man dana nu ca àgg waaye boo génnee loolu ñoom ñaari mbokk lañu dana ni wa saalihan li balayiyatin yura fi gayri naxwi ya gulaamu ya amra wa naxwu bishrin taabici lbakriyi wa laysa an yubdala bilmardi al atfu benn imaam du bayaan muy boroomu biral ñu tudde ko atfu bayaan andeewuñu ko ludul mu gën a leer bu jëkk ba niki abu xafs omar aw nasaq wala atfu nasaq mooy ataf bu ñuy toftalee ak xarafi ataf yi wal xaradul aana li nga xam ne mooy li nu jublu léegi bayaanu ma sabaqa biral bii dawlu bi jëkk bi atfu bayaan la nuy fasal bunt bi fasul bayaani borom bayaan gi atfa bi nga xam ne day biral day biral maatuf ba taabiun aji toppale shibhu sifati ju niroog sifa niroo naag sifa lool ci danañu ko tadkiiral danañu ko taaniital dana yi gaar sifa dana ko gaar dégg nga waaye nag li ko wutaleeg sifa sifa moom da daan dikk di taxsiisal wala tawdix wala lil matx ni ko nu doon passé ci xeet yooyu dégg nga jaa zaydun at tawilu alal xayaatu dégg nga xam ni eh, mën na taxsiisal bu dee nakira jaa rajulun karimun ah. loolu noonu la moom nag xaqiqatul qasdi xaqiqa bi la ñuy jublu ca lisim ju jëkk ja munkasifatun aji wu njikkoole bihi ci moom waaw xaq abu xafs umar jaa abu xafs umar dañ doon wax ni abu xafs ñëw na umar moo ñëw nag moo leeral turu abu xafs xaqiqatul qasd bi mooy kii ama sifa moom xaqiqatul qasd bi jëmul ci moom ci mawsuuf ma la jëm dafa dikk di ko taxsiisal rek mbaa yooyu at fu bayaan nag moom at fu nasaq moom ñaar yi dañoo bokkul dara waaw moom nag daanaka mooy ki li ñu jublu boo ne abu xafsa omar omar mooy ki tax wax jee jóg fa awliyan hu kon nanga ko jox moom at fu bayaan min wifaaqi la wali ci dëppoog gu muy dëppoog lu jëkk la di maatuufam la ñuy leeral maa la nga xam ne wuli ya joxe foon na ko naatu naat min wifaaqi la wali ci dëppoog bu jëkk ba niroo naag naat boog moom sifu sifa la la ñu daan jox naat mën nañu ko ko jox dégg nga ci leeraab jaag taarif jaag tankiir gaag tanis gaag ifraat gaag tasniya gaag jamu ga yëpp mën nañu ko ci faqad yakoonaa ni mën nañoo nekk moom bayaan bi ak mu bayyan la ñuy biral la mu nakkaray ni di ñaari nakira mën nañoo nekk ñaari nakira ndax nakiraatam am na ju gën a leer moroom ma soo ne isqini sharaban xaliban may ma ak naan meew ah kon xalib moo gën a leer ci sa li nga bëgg moo gën a leer saraab bu kese ndax saraab mën nay ndoxum ñuul mën nay leneen mën nay leneen nga faf ko leerale xaliban muy at fu bayaan ci saraaban nga xam ni dafa dikk pour leeral saraaban lan lañ ci jublu tax si sa lu ko de du naat soo ni woon saraaban baaridan ok kon baaridan naat la du at fu bayaan dafa leeral tax siisal xeetu saraab bi ma tax di wax ndax saraab am na baarit am na budul baarit waaye xalib moom dafa leeral xaqiqatul kas di mun kasifatun la ci bi ci xalibin bi nga gis danañu nekk ñaari nakira moom bayaan ak mu bayan waqat wakod yakoo naa ni mu arrafay nii kama yakoo naa ni ni ñuy nekkee mu arrafay ni seen nekk di mu arrafay ni nag moom ñëpp ko xam kooku taxul nuy wax waaye mu xamal ne ni muy nekkee ay mu arraf mën na nekkeet mu nakkar nag moo tax mu beral ko misaal amma mu nekk mu arrafay ni moom jarul mu di ko jéem a bayaan ndax mu looloo doon cosaani ki abu xafs omar abu xafs maarifa la omar maarifa la ñaari turi alam lañ wa saalihan li baladiyatin yura fi gayri naxwi yaa gulaamu yamra wa naxwu bishrin taabici bakriyi wa laysa an yubdala bilmardi wa wa yura def na gis at fu bayaan saalihan muy lu baax li baladiyatin ci ak nekk badal faw daanaka li ëpp ci fi axlabi axyaanihi mën na nekk fu loo mën a liraabe at fu bayaan mën nga koo liraabe badal su dégg nga su fekkee ni nee nga tey masalan akramtu aba abdillahi zaydan zaydan bu la neexee ni badal la ci aba bu la neexee ni at fu bayaan la ci moom ala sayidina muhammadin waxoon nanu ko ci dégg nga moo tax dana mën a nekk badal toujours lu dul ci fi xayri naxwi ci lu dul lu mel na nga ni yaa xulaamu yaamura yaamura mooy turu alam bi xulaamu nakira maqsuuda la nga ni ko yow xalaa bi ay yaamur yaamar mooy turam yaamar ak yaamur yëpp la ñuy wax su ko defee yaa xulaamu yaamura yaamura da nga koo nasab dégg nga ngi ci palaasu xulaamu li muy maa laa yansarif nag ndax siixatul fiil bi moo tax tanwiinoo ko yaa xulaamu yaamura léegi yaa ngi binaal dàmm ci xulaamu waaye munaadaa yëpp barabu nasab la ne yaamura nga daal di ko ataf atafu nasaq ci maxallu xulaamu bi nga xam ne barabu nasab la ne te ñu binaal ko ci dàmm kooku moom at fu bayaan rek nga ko mën a liraab mënoo ko def badal ndax al badal ala niyati tarxil mubdal minhu badal moom ni tur bi mel la mel dafa remplacé mel na kee bu fa jóge woon mu doy fa te kon bu ci xarafu ni daaw duggee nga dindee xulaamu yaa ya amura kenn mënu ko wax yaa ya amuru ngay wax du dëgg su noon yaa xulaamu ya amuru kon ya amuru mën nanu ko liraabe badal wala leneen wala at fu bayaan waaye nga ne yaa xulaamu yaa amura kon léegi kenn du wax yaa yaa amura yaa yaa amuru nasab gi dong moo tax kon mu ne su la liraabe kii badal at fu bayaan lañu koy liraab wa wa naxwi bishrin taabiil bakriyi kooko day moom badal rek la mën a déet at fu bayaan rek la mën a doon munul doon badal wa naxwi bishrin lu mel ni baatu bishrin taabiil bakri yi bu dee aji topp ci baatu bakri yi ci way wan ka doon wax ni anab nu taarikil bakri yi bishrin alayhi tayru tarqubuhu wuqua at taariki dafa am alif ak laam tey sifa al bakri yi mën na ko laaf ngir li nga xam ni moom it yor na al xam nga ni ismu faayil ak sifa yooyu su yoree al mën na laaf lu yor al wala mu laaf lu laaf lu yor al wala boog nga xam ne moom ci boppam dafay tas ni yamba jam bu loolu passé woon na léegi nag albakri yor na al kon taariki mën na ko laaf bishirin soo ko bëggoon a def badal ci bakri yi kon dafay mel ni da nga koo dindi bakri yi daf mel ni da nga bëgg ne anab nu taariki bishirin te loolu mënuñu ko nag ndaxte sifa su yor si al mënu la laaf lu yorul al laaful lu yor al te fekk sifa si du tas ni du jam du jamu loolu dafa dul mën ne kon bishrin nañ ko def muy at fu bayaan ci bakri yi te bañ di badal ci moom alayhi tayru tarqub moom maay doomi jàmbaar ja bàyyi woon jàmbaari bakri ja picc picc ya di ko xaaru bëgg mu sedd ba ñu lekk ko maanaam maay doomi karayoon bishir ka bàyyi woon ko jóg bi kër kay bishir bakar bakri yu bay bishir maay doomu ka ka bàyyi woon bakri yu moomu alayhi tayru picc yaa ngi ko sëpp tarqubu hoo di ko nekk waqoo an ngir waaja dal ci kawam ndax dafa ko rey ci xare muy yëngatu picc ya nag toog di nekk mu sedd ba ñu dal ci ko day damu ci ni baayam mooy jàmbaar jëreyoon ko kooku walay sa an yub dala doonul ñu dis ko def badal ñu di ko def badal nekkul bil mardi di lu ñu gërëm ci arab ya du mën am mu jeexal mu ne at fu nasaq taalin bi xarfin mutbiin at fu nasaq taalin maanaa taabiin aji topp bi xarfin ci xaraf wuuteeg bi mu nee taalin bi xarfin naat génn na ci at fu bayaan génn na ci badal génn na ci dégg nga mut xarfin mut biin wuy man tofal lisim ca moroom ma ci leraab kooku moo di at fu nasax at fu nasax soo ko defee muftada xabar ji dawlu nga ni taalin aji topp la ci bu jëkk ba bi xarfin mut biin ci xaraf wu mën a toftale ci leraab kax ni ki tey uxsus jagleel man sadaqa ka dëggu jagle ko bi wuddin ci cofeel wasanaa in aku tagg wasanaa in mooy misaalu lu ñu ataf at fu nasax ci wuddin fal atfu mutlaqan bi waawin summa faa xata amaw ka fii ka sidqun wa wafa am na yoo xaraf yoo xam ne ci xarafi ataf day ataf mutlaqan lafz ba ak xukmu ba maanaa ba daal lépp am na loo xam ne lafz ba rek lay ataf waaye ataful maanaa ba fa maatuuf ma jëm maatuuf alayhi ma jëmu ca woon fal atfu mutlaqan maanaam lafzan wa xukman te xukmi mooy maanaa bi mu jëm moo nekk bi waawin ci waaw boo ne jaa zaydun wa amrun kon ku ci ne da nga wax ni ñëw na du dëgg summa fu mutlaqan atam mutlaqan ci laf ci lafz bi ak ci xukmu bi nga xam ne moom maanaa bi bi waawin aji waaw waaw boo ne jaa zaydun wa amrun ataf aftab na lafz ba ci ni mu rafaa gi mu ko rafaa nañu rafaaye woon zaydun maanaa beet ak xukmu bi mooy dangaa saxalal zayd ak dikk amarit da nga koo saxalalul dikk summa faa noonu jaa zaydun fa amrun xataa noonu xadima naasu xata almushaatu am noonu jaa jaa zaydun am amrun aw noonu ni ki nga ni fii ka nekk na ci yow sidqun ak dëggu wa wafaa un ak matal ko la yi ci des nag wa atbaat lafzan fa xasbu bal wala lakin kalam yam dumru un lakin tala wa atbaat tofal na lafzan fa xasbu képp faqat bal bal lafz bi rek la ataf de ataful xukmu da nga naan jaa zaydun bal amrun rafaa ga nag na mu ko na ko zayd nekk woon bal dana ko jox amar waaye déedéet zayd da ngaa saxaloon ak dikkam amrun léegi nag moom waxatoo ca dara ma ngi mel na tuddagoo ko woon amrun rek nga saxal dikkam bu fekkee nag dàq ko dawlu maa jaa zaydun bal amrun léegi da ngaa weddi dikku zayd daal di dem saxal di ko amar ci nga ni maanaa yi safaanoo waaye du tee lafs bi moom ataf na ko ci rafaa gi laa it noonu jaa zaydun laa amrun zayd nga saxal dikkam amrun nga weddi dikkam kon kon xukumu bi dañoo juyoo maanaa bi waaye teewul rafaa gi moom andi na ko laakin noonu maa jaa zaydun laakin amrun ni ki lam yabdu feeñul imruun aswaay laakin talaa doomu kéwal bu ndaw moo feeñ tala saxiir dañ ko wax doomu baqaratul waxsh baqarul waxsh wala doomu kéwal dégg nga fa atif bi waawin saabiqan aw laaxiqaa waaw li ñu naan li mutlaqil jamci la laa yaqtadi tartib tax na fa atif atafal bi waawin waaw looy ataf saabiqan lu jëkk ci jamono ak ci jëf jaa zaydun wa amrun mën na fekk sax dégg nga ka jëkk nga ataf fekk na jaa zaydun wa amrun mën nga waxte amrun a jëkk ñëw kat zaydu doore ñëw aw laaxiqan wala kuy dabe jaa zaydun wa amrun fekkit zayd a jëkk amrun dabe fil xukmi caate aw musaaxiban wala àndaale jaa zaydun wa amrun ñoo ànd dikk kenn jëkkule ñëw morom ma fa anjaynaahu wa asxaaba safinati ñoo ànd ba leen yàlla di musal wala sa musaaxiban muwaafiqan kon looloo tax ñu ne al waaw li mutlaqil jamci laa yaqtadi tartib suya boo ki nga ata fa jëkk wala moo mujj wala ñoo ànd waxsus biha atfa alladi laa yugni matbuuhu kastafa hada wabni am na loo xam ne xarafi ataf yi kenn mënu ko fa ataf ku dul waaw ci place mooy na nga jagle bihaa ci waaw at fallati alladi atafu la nga xani laa yox nii du mën a doy mat boo la ñu topp ci moom maatuuf alayhima munu la doy maatuuf mi mënee su koo bañ a indi mukk loolu soo ko defee soo ko bëggee ataf waaw rek a ko mën ni ki istaffa rang na haada kii zaydun mi wabni ak amru sama doom ji istaffa zaydun wa amrun haada wabni waxee na du dëgg wab ni yaa ngi ko ataf ci haada waaw rek ko ma de boo noon istafa rang na zaydun wa amrun wala taqaatala xeexoona zaydun wa amrun du dëgg kon feelul musharakati la listifaaf ak rang gi kenn jenn jëm mën na rang kon fokk nga ni diw ak diwa rang kooku kon bo doo fi atafe benn kenn mënul ni istafa zaydun fa amrun ndaxte yi ci des la muy ataf fekk na mat boo ba mënoon na doy ñu maatuuf alayhim ñu bañ ko andi suñ ci amul woon xarat duñ ko andi du dëgg ni ki jaa a zaydun fa amrun mënoon nga ni jaa a zaydun yem ci waaye istaf fa rang na zaydun moom dong ku mu rangal fi'lul istifaaf mun taame ci kenn wal faa'u moo topp li li tartibi bi ittisaalin wa summa li tartibi bi infisaal faa moom day def tartib waaye maa littisaal ala xasabi maa yaqtadihi alxaal jaa zaydun fa amrun kii dafa agsi kii daal di agsi dégg nga waaye nag ala xasabi maa yaqtadihi alxaal fa yashmalu mithla tasawaja zaydun fa wulida la tasawaja fa wulida lahu feelu tasawaja feelu wulida lahu nga ci atam te ñu ni faa dafay tegtale taaqib daal di wuutu fi saasi waaw ala xasabi maa yaqtadihi xaal li xaal bi laaj rek su fekkee diggante takkam ak ba ñu koy amal doom lu dul muddatul xamli juróom-ñeenti weer rek a fa jaar te loolu dana am lu bare kooku da mën nga ni dafa takk rek daal di am doom fi saasi waaw kenn du defee ni bis bi mu takkee la am doom mbaa ca suba danañu xam ne lu mu gàtt gàtt muddatul xamli dox na fa xanaa waaw doo kooku du tee muy taqib wute naag tasawaja zamanan summa wulida lahu mën na takk ba am nanga mi at door a am doom nga ni tasawaja thumma wulida lahu wa summa li tartibi waaye nag tartib bi mooy ni li mu jëkk a tudd moo jëkk looloy tartib waaye nag bin fi saalin ci facc dégg nga wax sus bi faa in at fa ma laysa sila ala alladi staqarra annahu sila faa it jagoon a barab moom dong moo ataf na nga ko jagle at fa ma atafu loo xam ne lay sa sil ak mënut a nekk si la ndax yorul damiru aayit ju ca mën a nekk dellu ci mawsuul te jumlay si la fokk mu am damiru aayit ju ca ne du dëgg bu fekkee ne nag da ngaa jël li nga xam ne moom mënul si la ndax amul aayit ataf ko ca la mën a nekk aayit ñaari jumla la bii am na damir mën na nekk aayit mooy aayitu mawsuul beneen jumla nga bëgg ko ci ataf boo xam ne moom de amul damir ju cay ne kon moom mënut a doon aayit kon nag faa dong nga mën a indi mu takkee leen ndax faa sababi ya la mu takkee sabab ak mu sabab waaye weneen xaraf mënu faa dikk du dëgg dégg nga ala alladi ca la nga xam ne istaqarra an alladi yatiru fa yaxdabu zaydun azubaabu alladi yasaru fa yaxaafu zaydun al asadu alladi yasaru li nga xam ne dafay yemmu nabnahu wa mu dellu ci ladi xabaram rek a des aywa ba mu yemoo faya xaafu ba tax daal di ragal tiit zaydun léegi faya xaafu zaydun fiyal ak faay la nëbbul damir deful dara kon faa dong moo ko mën a ataf ci yes aru sabab bi yéegi nag moo ko takkalee li nga xam ne yes aru fa ya xaafu dafa yemmu ba tax Zayd daal di tiit kooku al asadu mooy asad mooy xabaar bi naka noonu alladi yatiiru li naaw fa yaxdabu ba tax daal di mer Zaydun moo di azubaabu yaxaafu Zaydun ak yatiiru zubaab yooyu yaar kenn yoru ci damir ba tax mu mën a doon bu doon loo xam ne lii mën na moo doon si la moom itam ah kon kay mën nga koo atafe waaw soo noonu alladi yaquumu alladi yaquumu wa yaxdabu moo di fulaanun wa yaxdabu nga fataf ko waaw ndax moom it mu ngi damir ju mën dellu ci lële dégg nga ah léegi nag mu dem ci yeneen xaraf ah baadan bi xatta atif ala kullin wala yakunu illa gaayata alladi tala xatta dana ataf waaye fi baad almawaadii ja aajaroom wax mooy ni xaytu yakunu almaatuufu baadan min almaatuufi ilay alay lenn la cay doon jus bu ca bokk lay doon te it du wala yakoonu du nekk illaa gaayata alladi tala lu dul mu yemukaay ci loolee ñu ko ataf mu topp ci moom mu yemukaay ci boor bu la soob nag su yeboo fi l uluwi wala fi linxifaadi wala fi sharafi wala fi daati wala fi kibari wala fi sigar lu mu mën doon daal yemukaay la ci wala fi sharafi wal xissa akaltu samakata xata rasaha léegi bopp jën ka koy seeñu ba mu set du desal ca jën wa dara ndax moo ca gën ñàkk njariñ aywa kon nag yemukaay la ca te jus ubu ca bokk la yemukaay la fi fil xissa ci ñàkk solo wala naka noonoo tam nga xam ni itam maanaam da caa gën a foor ci lu mu doon ni ki dana bu wala xaaya la bu doon ci ab tukki sax gaawaay da ca gën gaaw wala da ca gën yéex misaalu yooyu boo ne xadima naasu xadima alxujaaju xatta almushaatu ñibbisi nañu ba ñu doon dox ak i tànk sax ñëw na ñooñu yemukaay lañu ci bot yéex du dëgg ke nee na xalabnaakumu xattal xalabnaakumu qaharnaakum la kii wax qaharnaakum maa ngi xam xalabnaakum xattal kumaata wa antumoo taxaafuunana xatta baniina al asaaxira jàmbaar yi ci nit ñi la ñu bokk doom yu ndaw yi jus u lañu ci nit ñi la ñu bokk xalabnaakum waaye nag ñële xaaya lañu ci lirtifaa ñii xaaya lañu ci ñàkk soloog tuuti mën nañu leen xattal kumaata bés yéen jàmbaar yi ngeen yaakaar sax noo leen man xam nga kumaatu ñoo féete kaw wa antum yéen taxaafoona naa da ngeen noo ragal kii def taxaaboona naa ñoo yam ci maana xataa bani naa ba sunu doom yi àlla saaxira yi gën a ndawe sax da ngeen leen a ragal ñoom xaaya la ñu ci doof te ca la ñu bokk moo tax mu ni baadan bi xataa itif baadan bi xataa ala kulleem te doom nit ñi ñooy kullu baniin yi ñoo di baad ak kumaat yi wala yakoonu du nekk moom li ngay ataf illaa gaayata alladi tala lu dul muy yemukaay ci la mu topp ci bor boo ko jëmee amit ci xarafi ataf yi la wa am ah maani arba takunu xata xarfa jarrin yaa xata ko koy cosaan xarafu jar bi nag moo doon cosaan moom ni ki xata matla'il fajri ci xarafi jar yi la bokk loolu la ñu ko gën a xamee wa yakunu xarfa nasbin bi mu nekkee xarafu jar ba tey génnul mën na nasab mu daare o génnul ci jar gi ndax an ju ñu xadaf faw lay àndal du dëgg xataa yaxkuma allaahu ji nga ni mu nasabe foofu waaye mata xarafu jar la ndax xataa des anam dadul feeñ kenn du ne xataa an yaxkuma te an xarfu masdari la su mënoon feeñ dafa mel da nga ne xataa xukmillaahi nga xam ne xataa ma nga ca jaram nga ba tey de ana lu mu niroo laam li yaquuma maanaam li an yaquuma la ay li qiyaami kon laam xarafu jar la fa waxataat xarafu jar de moo ca doon cosaan même bi mu nasabee mu daare waaye kon mën nañu ne xataa dana doon xarafu jar dana doon xarafu nasab mu daare ndax an jadu feeñ mukk kon ñu faf ko tuddee xataa ni nga ne aw xarafu nasab mu daare wa ndax an jadu fa feeñ lu nag aw xarfa atfin ni ki fii bu fekkee baad la ca summa xarfa libtida dana nekk xarfu boo xam ne mubtada ak xam jumlay li si ma ca topp du dëgg arbaatan tajiduha muqayyada dégg nga yaa ajaba maanaam nga ni kooka ne takunu xata xarfa jarrin ya fata aw xarfa atfin li mudaariin aw xarfa nasbin li mudaariin ata aw xarfa atfin summa xarfa libtida arbaatan tajiduha muqayada yaa ajaba xata kulaybu na mu ko waxe ka matlaci ilfajri xata yaxkuma wa naasu jaau kulluhum xata alama yaa ajaba xata kulaybu sabbani xata aljiyaadu ma laha min arsuni xata aljiyaadu mu jiyaadu mubtada la maanaam xata xata kulay bu sabbani kulay bu mubtada la moog jiyaadu ah ka matlaci ilfajri xata matlaci ilfajri xata yaxkuma allahu ah ah wannaasu jaau kulluhum xata al umyu kooku bi mu bi muy xatafee baad ci kul wa am am xarafu ataf la itif biha isra hamsi taswiyati ci gadaaw hamsa gi yemale xamsa goo xam ne sawaun moo koy dawlo sawaun alayhim sawaun alayna awaata am lam takun min alwaidin sawaun alayhim a andartahum am lam tundirum aw hamsatin wala geneen hamsa goo xam ne moxniyatun lu remplacé an lafdi ayin walis baatu ayi dégg nga dégg nga maanaa aywa bu remplacé baatu ayi ni ki a azaydun indaka am amrun maanaam ayyuhuma indak kon am am sa gidaar ma yooyu yaar nag moom la ñuy wax am al muttasila am ji ataf ci gannaaw hamsa taswiya hamsa gu topp ci baatu sawaun wala hamsa goo xam ne bi maanaa ayin la yutlabu biha taayinu ahadil amrayn zaydun indaka am amrun yooyu yaar la ñuy wax am al muttasila am na bu ñuy wax amil munqatia dana wax léegi ni wa bi inqitaain wa bi baanaa bal wafat in taku mimma xuyidat xuyidat bihi xalat am kon yaar la muttasila ak munqatia muttasila ji mooy ji dikk ci gannaaw hamsa taswiya wala hamsa goo xam ne mën na remplacer ayu dégg nga misaalu hamsa taswiya sawaun alayhim a andartahum am doom tundur sawaun alayna ajasina am sabarna wala am sa gu remplacer ayu azaydun indaka am amrun maanaam ayuhuma indak wa rubbama usqitat il hamsatu in kaana xafal maana bi xadfiha umin hamsa googu nag léeg-léeg mënees na koo xadaf in kaana su fekkee ni nekk na xafaul maana nëbbug maanaama umina ñu wóolu ko kenn jàqatul maanaa mi lënt bi xadfiha ci sababu xadaf hamsa ga su fekkee soo ko xadafee du tee ñu xam ne hamsa listifaam gi ma ngi fi ka qawli shaaciri la amruka ma adri wa in kuntu daariya shoaytu bi sabin ramayna am bi ramayna jamra am bi samaani amru bnu abi rabiata shabu shaacir ci madina munawara moo ko wax amru bnu abi rabiata la amruka ma adri waat sa dund laa giñe xaw ma wa in kuntu daariyan doonte nekk naa di koy xam lool waaye xawma sax jigéen ñooñu muy xasal ci ñoom di wax seen taar ndax te ci ci ci tàngi aj lakat nee na ndax bi sabin ci juróom-ñaari xeer ramayna al jamra la ñu sànni jamra am bi